sénégalais je suis un mais li ma jëkk constaté d'abord que mooy dañu war a xoolaat la politique énergétique du pays façon générale mm-hmm. parce que problème yi nga xamante ni moom la ñu jànkonteel option boobu ñu jël moo baaxul xam nga Habib il est là am posture syndicaliste mm-hmm. mais toogaayam tey défense su Sénégal son instrument de travail mais xelam demul tey ci coono ak jafe-jafe yi nga xam ne askan wi ñu koy. ñu ngi ko ah, ñu ngi koy jànkuwante mais ma rek nañ déglu si si si non non dem déglu dem la déglu mais même dit que d'accord nañu que dafa cher. on est au la population. Ah, xam nga wax na fi léegi nii Sénélec am nañu production bu doy ba dañuy jaay bitim réew. or dans le Sénégal des profondeurs il y a des yu amul courant moom moo tax Albert je crois bi ma doon bala ngay laax jaay laax lekk. je pense que boo demee bay jégg di jaay bitim réew courant te nga am askan wu nekk fii ñu soxla parce que courant ce n'est plus un luxe c'est une nécessité c'est un de travail courant ñëpp dañ ko soxla léegi foo dem courant boo ko amul doo mën liggéey donc dafa war a bokk dans le lot quotidien des de sénégalais loolu dafa am solo ensuite. dama doon remarqué après nga tontu nga baal ma. dama lay leeralal nga dagg sam fil conducteur s'il te je suis un peu comme les journalistes dañ am fil conducteur. <laughs> alors may ma tuuti rek dinañ dinañ dañuy dañuy weccoonte ensuite ah, dama gis ni bu njëkk ba je pense que il aurait beneen yoon di ngeen invité il est formidable il est très bien il est bien il a bien expliqué. techniquement mais mais ñu ñu waxal du ñu dégg li mu wax. ça le fond du problème il y pédagogie terre à terre qui n'est pas ressortie de ses propos moo tax ma jàpp ni war ngeen a mën na fexe beneen débat. ngeen invité le directeurs de la clientèle ko crois am nañ ko wala directeur commercial nga xamante ni c'est véritablement la direction générale nationale qui parle alors donc loolu loolu problème xam nga bu njëkk dañ daan gis ñun ñëpp doon nañ gis euh, ay nit ñu yor seeni engin euh, ñu loon ñuy ñëw ci ci kër yi n'est-ce pas di relever di relever les releveurs mais léegi amatul ba si ñu nii dañu estimer foofu la tapp lay commencer hmm. ba si ñu ni léegi compteur yooyu sax baaxatul parce que sàccum courant bi dafa bëri ñoo ko wax de ñoo ko constaté wax ko je ne dis pas le contraire ba si ak ñu indi woyfal mhm. woyfal bi léegi nee nañu nekk tudd woyfal dix la tudd léegi parce que comme ni ngeen ko waxee boo jëndee léegi cinq mille balay trois jours nga gis mu xonq te bu xonqee kilomètre la jëm te bu kilomètre sa ko jeex la finalement à quel sens finalement donc loolu mooy problème yi nga xamante ni véritablement moom la ñuy jànkoonteel je crois que franchement euh, état bi dafa def erreur bu grave grave grave parce que dafa dafa génne loxoom ci jàppale askan wi subvention jàppale askan wi la modéré li nga xamante ni moom moom moom la njëg doon jar la conséquence de l'augmentation de l'électricité tu l'as tu l'as confirmé tout na l'augmentation des tarifs des transport publics on n'en parle pas mmh. c'est la conséquence la première conséquence d'ailleurs a été que transport transport public yi yokku na nga dem feneen produit yi nga xamante ni également dañ koy jaay jooy bitim réew ñëw ñu ni bateau yi di ko indi ak yooyu ñoom tam yokk nañu boo demee au port di décharger di génn da ngay fay conséquence tamit indi na ko ensuite ni nga xamante ni même les pour tey nga am sax compteur installé la ko mais c'est c'est la croix et la bannière da ngay dem dañ lay wóorloo wóorloo ba sonn donc je pense honnêtement ce n'est pas la direction générale encore une fois hein parce qu'elle n'est qu'un instrument que l'État a moi je parle de l'état central c'est l'état central qui a failli à sa mission c'est ça la li si des yëpp ay conséquences mauvaise gestion la mauvaise articulation bi nga xamante ne waroon nañ ko mën a def moo tax ma ni dafa laaj ñu defaat beneen relecture la politique énergétique de façon globale hmm. wax nga sànq euh, SONES euh, S2 c'est vrai ñoom tam nañu facturation bi noonu. moo gën a cher. mais booba gën a cher xamuloo. non seulement moo gën a cher mais amuñu amuñu amuñu amuñu sa ndox. man deuxième tranche six cent quatre-vingt-cinq non boobu gën a cher te wax non seulement def cher mais amuñu sax ndox man wakaam jéem a ne wakaam ñoo may déglu ñoo may déglu ça fait sept à huit mois amuñu ndox amuñu ndox ay citerne bi ñëw non non maa ah, leen félicité parce que seen mission dafa des bala ñu leen féliciter seen mission dox ba xaabaabal wax naa léegi ay villages yu bëri bëri ak ay dëkk yu bëri bëri amuñu kii et puis tu de la zone rurale mais amatuñu zone rurale léegi foo dem ci Sénégal c'est des communes maintenant c'est l'acte 3 de la décentralisation c'est important de de de, de le relever aussi nekkatuñu ci àll boo xam xamante ni comme comme ndoot àllam doon na foo foy fooy comme sañu maam yi doon def sa mbokk pël yi doon sàmmi ak ñoom seen yooyu mais léegi foo dem commune la c'est des communes maintenant cela veut dire que dañu war a hériter n'est-ce pas euh, de de de de de beaucoup de commodités y compris l'électricité loolu dafa am solo te loolu wax dëgg yàlla ay jafe-jafe la ay manquement la yu bëri bëri yu jëm foofu donc wax nañu ndox mi Senelec également. Euh, euh, SDE SDE pare nañu la même chose mais il y a également la Sonatel aussi c'est des problèmes. foofu moom fa la arnaque bi ëppee. plus grave pire encore. pire encore mais c'est c'est c'est les occidentaux qui gèrent tout sa qui gèrent. wax nga léegi wax loo SAR n'a pas parlé de la société africaine de finance sauf la Senelec oui mais mais Senelec c'est la SAR mais attends seen seen corrélation corrélation SAR mooy toog di leen jox. Sarr. Sarr mooy togg. soo moo koy togg. dafa nang rek. c'est quoi votre relation ak la Sarr. la corrélation entre la Sarr et la Senelec c'est connu de tous.